Assalamualaikum mbokki internet yu leader 221 xibaar bu tiis ak nakar lañ leen daal di tàggee ki nga xam ne moom di Papito Kara niki ki nak nag lañ ñu annoncé li nga mu ni ñu ci bari dañ ci polémique ñu bari démentir cette information ci naka noonee si la nag sax frère am daal di defee ab sotti daal di indi ay éclaircissement ci li nga xam ne moom mooy kàddu yi ñuy ci suba moom nag la mu daal wax moom mooy ak ak ak ndax amuñu benn nouvelle bu Papito Kara lam ci daal di dolli mooy niki démb jarbaatoo bi nga xam ne moo àndoon ak Papito Kara quitté depuis dimanche Sénégal ngir jaar ci géej gi dem ci Espagne daf leen woo ci téléphone Papito Kara bi ñu ko laajee ay nouvelle am dafa wax ne Papito Kara fi mu nekk ak moom fi mu nekk bokkul ñoom nag seen xel tey loolu ndax nag lañ doon laajte mooy lan moo tax téléphone Papito Kara nekk ci seen jarbaat boobee te amuñu benn nouvelle bu Papito Kara ci naka noonee ci la frère bi sax daal di nag defee ab appel ñaan képp ku nekk ci biir Espagne ñu dimbal leen jox leen ay nouvelle bu Kara ndax am nañ jàkkare te famille bi nekk na ci tiis. mu mel ne nag tey jii nii ci moment yi may wax ak yéen kii di Ousmane Diagne moo def ak publication ngir nag. annoncé li nga xam ne moom moo di décès Papito Kara wax ne nañu ko ñaanal bu baax a baax a baax a baax mu mel ne nag moom Papito Kara finalement dafa mujj faatu ci voyage bi nga xam ne amee na ko quitté fii ci Sénégal ngir jëm foofu ci Espagne jaaree ko ci géej gi. ci fàttali moom Papito Kara mu ngi bokkoon ci mafia kàcc kàcc ginnaaw nag bi ñu ko daal di tegee woon loxo daal di koy bàyyi mu dem ci contrôle judiciaire. mu mel ni sax moom Papito Kara ñàkkoon yàkkaar ci Sénégal moo tax mu daal di jël gaal gi ngir dem ci Espagne finalement mu ko coûté li nga xam ne moom moo di dundam jamono ji may wax ak yenn ay nitam ak i fansam ak i xaritam ñu ngi amee naqar ak tiis ci disparition Papito Kara moomee ndax lañu càpp moom moo di nit ku bëgg réewam dem na moom Ousmane Diagne dam ca daal di dolli moom mooy ne ñëpp ñaanal Papito Kara ndax jàmbaar la woon fii ci biir Sénégal